suñu mbokk yi ñuy suivre fii ci Dakar Midi internet Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëw ak yéen ci suñu émission bi nga xam ne mooy waajal tabaski voilà ñu ñëw fii tey nag ci Cité Sarr euh, ci euh, atelier Kara Aline Kara amoon tey suñu invité Adama jeeju Adama ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, ñu jox la nga nuyoog suñu mbokk yi ñuy suivre ci internet bi Dakar Midi. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen doole seen wàccuwaay. di leen en tout cas c'est tout à fait un honneur nekk ak yéen ñëw di toog di exprimer wu suñu sur le plaisir en tout cas réciproque voilà kon merci Adama euh, ginnaaw bi nga nuyoo ba pare euh, ñu ànd ak yow ci suñu émission waajal tabaski ak suñu mbokk yi ñuy suivre ci internet bi euh, Adama ñu lay laaj ni ku ne xam na ne tabaski wàccaay la fa tubaar fakal la te yéen tailleur yi da ngeen ciy dox wàll boo xam dafa am solo lool ndax nag tabaski bu fekkee am nga xar euh, am la ca topp te sañse woo ah loolu moom taxul ñu naan tabaski te nag fa euh, tubaar fakkaar la ku ci mel ni ñun suñu mbokk jigéen ñi dañu bëgg sañsee dañu bëgg àdduna te nag euh, dañuy bëgg di tase tailleur boo xam ne bu la ciseaux rek macha allah foo jaar ñu laaj la ko waaw te yéen nag aada euh, seen atelier bi di atelie Aliou Kara dafa bokk ci atelier yi nga xam ne fa tubaar fakkaar la dañ leen di joxoñ baaraam boo xam ne ku ngeen kubal rek ñu xam ne yéen ko kubal mm. waaw léegi nag ma la doon laaj ni la hmm, yéen seen atelier bi entreprise la wala da ngeen tase rek rek eh, di fi ñëw wala da ngeen jaar ci structure boo xam ni dañ leen jàngal coupe et couture. Ah, loolu moom vraiment bu ma posé question si côté demaine boobu dina ma neex trop parce que tey yàlla def na ni ñi nekk ay gone. kenn ku ne ñi xamante du tey. li ngi wax rek ñu ne ànd bu yàgg dëgg la. kenn ku nekk si lu muy def qualifié wu ne si macha allah. Mm-hmm. man mi dem naa jàng naa fi métier. pare dem def euh, dem Côte d'Ivoire jàng foofu métier presque sept quinze ans et puis dix ans de couture. macha allah de haute couture. Mhm. génnee nag si patron bu ñuy wax Patéo. Mhm. yaakaar naa Sénégal fii ñi ko xam ñu ko xamul sax bu bëriwul. day participer sa ay défilé mode yi gën a yi gën a kii. Mhm. kon foofu laa obtenir sama diplôme. pare dem defaat formation ku mel ni Burkina. soog a ñëwaat soog a ñëwaat Sénégal fii dem jëli xam-xam ñoo toog fi liggéey dëgg euh, yéen ñu ñu suivre ci euh, Dakar Midi euh, ñu ngi nekk ba léegi ci atelier Adama Kara am suñu invité Adama jéeju waaw Adama li nga Adama Collé li nga wax am na solo macha allah ndax liggéey boo gis jàng ko da cee baax waaw ndax loo jàng da nga koy maintenir mu nekk ci sa xel defe naa liñ naan loo mokkal booy nelaw sax buñ la ko tegalee da nga koy dóor waaw te fi nga wax ni fa nga jaar yëpp macha allah tubaar fakàlla ah, yow mënoo kubal nit te du békk macha allah waaw euh, may delluwaat ci sama beneen question rek Adama euh, di la laaj nii ak période tabaski bi ñu toll nii euh, yan coupe yan genre coupe ngeen gën a faral di kubal client yi. une spécialité ak base du copier-coller. Mhm. copier-coller tout le temps dama koy comme ni ma koy wax rek sama ah, frère yi. dëgg la dama ko yàgg bañ. Mhm. parce que yaakaar naa nit bu la yàlla bu la mayee xel pour nga xalaat. Mhm. war nga mënoo xalaat comme ñeneen ñi ñuy xalaatee. kon man copier-coller moo wax dëgg yàlla dama ko yàgg bañ. création mooy sama base. kon fii dañuy créer mais dañoo am suñ coupe boo xamante mooy suñ spécialité boo xamante mooy doon suñ marque bopp. te marque bi ñaanuñu yàlla mu yem fii rek ñaan nañ mu génn hors Sénégal. à travers le monde à te loolu mooy suñu défi. Mhm. challenge bu gën a rëy. te loolu ñu ngi siy liggéey. Mhm. yaakaar naa suñ coupe di nga wër Sénégal nag ba mu daj pour nga am ko yombul. parce que c'est di ménage. dëgg la que ce soit coupe ivoirien. Mhm. coupe ghanéen. coupe nigérien lépp laay partagé. bi ñu ko génnee mu doon loo xamante ni lu extraordinaire ku ko sol doo mun a comprendre sax da nga da nga sol noonu rek ànd moom ndax mbégteel bi ngay am <laughs> Adama loolu loolu am na solo macha allah ah am na solo te création dafa am solo. création dafa am solo macha allah comme ni ma koy waxee rek euh, euh, man ci millier bi laa nekk ci millier couture bi laa nekk fa tubaar fakar la macha allah gis nga tey lii ngeen ma kubal nii ma sol ko. xam nga lii bu la neexee nga ni tunique la. bu la neexee nga ni grand boubou la. bu la neexee tam nga ni euh, nu la neex daal sàllan ñu koo ko daal fa tubaar fakar mais saison bee ci am solo la. li nga wax Adama dafa am solo yeneen coupe euh, mën nga gis coupe ivoirien bi ci biir mën nga gis coupe malien bi ci biir mën nga gis sénégalais bi ci biir voilà euh, may dellu di la poser question rek ni la Ada euh, ci veillu tabaski bi nii ak cliente yi ku ne xam na ne jigéen dafa jafe ñawal bañ nañ ko dañ naan góor amul complication moom du xool tracé bi dem na nii wala du xool V bi dem na ni mais jigéen dafa naqaree ñawal daal dafa naqaree ñawal ak ci tabaski bi nii nga xam ne day saturé ndax du ngeen ci am ay difficulté ñawal jigéen ba pare muy la waxuma woon lii wala nga ñawal jigéen ba pare muy la coupe bi bëggee ma ko nii nan ngeen di accueillir clients yi ak nan ngeen di euh, euh, genre genre euh, kii yooyu critique yooyu nan ngeen koy digérer daal comme li nga wax rek nit moom boo mënee li ngay def moom première des choses client bu ñëwee du xam lu mu bëgg. client moom ak malade bi rek ñoo yem. kon bu demee si docteur day wax docteur man lii moo ma dal. Mhm. docteur mooy analyser cas bi kon ñun euh, suñu domaine bi noonu la. client bu ñëwee le plus important da ngay xool ba pare première des choses dañ la koy jàngal école de couture. aspect physique bi. Mhm. forme bi lépp dañ étudier ba pare. Mhm. soo ko proposé loo xamante ni lu mu musul lu mu foggeewul parce que moom bu ñëwee dina sama idée xëy na teewaas rek laa bëgg ñawlu mais bu ñëwee te boo ko proposé loo xamante ne lu génn ak par rapport ak forme boo ko ñawalee pourquoi pas bu ko solee surtout le plus important coupe coupe mooy liggéey. coupe bu ratee rek macha allah liggéey moom day faussé. dëgg mooy ciseau bi. Mhm. donc concentration foofu la nekk. Mhm. mais yemul tamit si coupe rek. dëgg la du début jusqu'à mhm. dafa war nekk impec. coupe bi piquage bi. ba si repassage bi ñaw bu paree sax ba si repassage bi. lépp dafa war a nekk li dafa war a génne loo xamante lu. harmonie la la voilà mhm. en fait la couture c'est de l'art. Mhm. kon dafa doon loo xamante ni. boo koy def tey danga war a ànd ak en fait nit lépp looy def daal da koy bëgg. conseil boobu nag laa mën a jox. képp internet yi ñi koy seetaan ak ñeneen ñeneen. Mhm. nit li ngay def boo ko gëmee incha allah rabi yàlla dina la jàppale. dëgg la mais bul tâtonner. non si Sénégal nag am nañ habitude locale fii dañuy consommer quantité que qualité. quantité nag yomb na. di nga ko sol mais qualité yi ñi ko xam-xam nañ ko mhm. te yaakaar naa client yi dofuñu waaye mhm. koo si ñawal benn yoon bu rafetul mhm. dootul ñëwaat non non non koo si ñawal benn yoon bu ko solee bu ñu ko ne rafetul te yéen jigéen ñi xam neen leen bu ngeen solee rafetul rek jeex na kon ñun foofu la suñu challenge yi a nekk daal en fait la Ada waaw Adama kàddu yi am na solo li nga wax am na solo fa tabarakallah macha allah ndax euh, muy lépp loo mën a gis rek ci àdduna muy métier boo mën a gis rek foog nga bëgg ko ba pare waaw te métier boo gën mën a gis tam dafa war a ànd ak euh, création voilà ndax création euh, mooy li nga xam ne daal mooy mooy mooy génne euh, li ngay def daal mooy génn li ngay def voilà euh, waaw euh, Adama ñu ñëw ba léegi rek ci ndax euh, wàccaay tabaski la ñu wax hmm? ku ne xam na ne wàccaay tabaski tey maa ngi ñëw fii ci atelier Adama Alioune Kara am sama invité Adama Diédhiou waaw yéen suñu mbokk internet yi ñuy yi ñuy seetaan di ñu déglu ah ñu ngi fii tey ci atelier ci atelier Adama Adama Kara Alioune Coly am suñu invité Adama Alioune Coly Mhm. Adama Koli euh, Adama may dellu di la laaj ba léegi di la laaj ni yéen euh, fii ci atelier bi euh, ñaw rek ngeen fii def wala am na yeneen genre création yu ngeen di def wala yeneen genre ci biir yeneen yu ngeen di commercial bu ngeen di def yoo xam ne day ànd ak liggéey bi daal ndax ku ne xam na ni fa tubaar fakàlla macha allah ku ne yëre am na loo xam ne boo ko solee mën nga ànd ak moom waaw ma leen di laaj rek ndax ci côté boobu am na ci lu ngeen ci yëngatu daal. fii daal ñun daal yi. parce ku ne yére moom. xam nga ne doo sol yére. te daal teg si carax du ànd. <laughs> kon nit daal boo gëmal sa bopp. Uh-huh. bëgg sañse xam lu baax. Uh-huh. bëgg lu baax foo solee yére hmm. bu rafet. Mm-hmm. war nga si mun a teg sa koppati bu rafet. dëgg la boo si tegul sa koppati bu rafet. Mm-hmm. dàll wi. dëgg la parce que ni ko tubaab bi waxee la tenue vestimentale doit être correcte. kon nit euh, boo correcté. Mm-hmm. yaakaar naa lu question xaalis ngay am. mais da nga am respect. surtout surtout l'habillement correct. Uh-huh. boo ko defee. Mhm. sol ko boo génnee même boo yoru dërëm sa poche. dëgg la kii yor na. te di am wërsëg boo xamante ni yow doo ko doo ko foogee. dëgg la kon correct daal nit lu ko waay jëndee jar na ko. dëgg la dëgg la ah. dëgg la waaw Ada am nga wax nga lu am solo wax nga lu am solo surtout euh, ci correct boobu nga daanele foofu laay foofu laay foofu laay jëlee xam naa nag euh, suñu mbokk internautes yi émission bi neex na loolu Fatou Ba Fakala macha allah waaye da nga ni correct ma ñëw di la fekk ci correct boobu ndax euh, nee nañu euh, nit xamul ñu li ci nekk sa kër xamuñu lu nekk sa biir mais boo sañsee photo baar fakal la ñu xam yow yaay kan ñu xam sa valeur waaw nit ki dundi man maay kan il fi yow correctal rek te ci biir correct boobu nag fii nga ko mën a amee fii ah ci entreprise Adama Kara foto baar fakal la ñu fekk fi ay xale yoo xam ni xale yu am jom photo baar fakal la xale yu am ambition xale yoo xam ne am nañu xam nañu li ñu bëgg nag photo baar fakal la ñu ñaan yàlla suñu borom lafal leen cat ah euh, liggéey bi yéen a xam li ngeen ci bëgg photo baar fakal la ah, yàlla gën a ubbil buntu wërsëg yi yàlla gën a attiré clients yi ah, boole seen xol yi ngeen juboo fa tubaar fakal la waaw man daal xam naa ni daal ah, ku def ni man daal fii ñëw fii ci atelier Cité Sarr hmm, atelier Aliou Kara kontaan rek ngay def bu la jaaralee ciseaux rek nga xam ne ciseaux nañ la fa tubaar la waaw Aliou aadama ñu jox la nga tàggoog suñu bokk internautes yi Dakar Midi yi ok maa ngi nuyu surtout le plus important maa ngi nuyu sama encadrement ak samay collègues ñoo xamante maa ngi liggéey ak ñoom guddi bëccëg duñuy sonn duñuy tey lépp lu ma leen wax def leen ko nii dañ koy def kon wax dëgg yàlla ñooñu aw ma seen fay aw ma seen xaw ma daal lu ma leen di fayee. tey boo déggee ñu ne Aline Kara Couture. Mhm. wala Adama ñoo fii di waxtaan. Mhm. ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax. Mhm. ñëpp jàpp nañ ci bi. te ba léegi yegsee guñu fu ñu war a yegsi. dëgg la incha allahu rabi bis bu ñu fa yegsee Sénégal mooy am ndam. waaw ndax ku ne xam nañu sañse dafa ànd ak daal ànd ak koppat yi te boo ba baax nag dangaa war a laal parfum bu toog waaw yéen daal euh, ku mu neex jógee këram sangu ba set ñëw jël yére bi sol jël daal di sol teg ci koppati bi daa di laal parfum bi nag waaw suñu bokk internet yi euh, ñu ngi woon fii nag tey Cité Sarr ci euh, atelier Adama Kara amoon suñu invité Euh, Adama jeeju Adama Koli defe naa kontaan ngeen ci émission bi ñu leen jox dig daje la prochaine merci.